maag Serigne Cheikh Ibra Mbacke moom Serigne Cheikh Astou Fall ak Serigne Cheikh Ibra Mbacke moom Cheikh Ahmadou Mountakha ñu yëkkati sunu kàddu ak sunu nuyoo di ko jaarale ci Serigne Abdou Rokhia xalifa Serigne Mortala Fall mu jotal ko ci xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sax yàggal leen lool te wéral leen di doolee sant bu baax sunu borom bi nu may ñu teew ci bis bu tedd bii di bisu maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina làmp yoon wi di doolee sant bu baax ci turu sëriñ Cheikh Khadim Fall mi nga xam ne di bis bu am solo ci yoonu murit waaye am solo ci mbooleem kuy ñaq jariñu ci mbooleem sutuwaay bu nekk ci réew mi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall kenn ku nekk wan na la yoon ci ñaq ñaq jariñu nga xam ne sëriñ bi nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg ku ci jariñu rek ci maam Cheikh Ibrahima Fall nga royo yoon woowu yi muy baabul muridina moo tax na ko woykat boo waxee rek Cheikh Ibra xat tax tërijaal Cheikh Ibra innakal kamal kon bis bis la boo xam ne bis bu am am solo ci réew mi ndax jàngat bu mag a mag la waaye de bis la boo xam ne buñ ko dee feetal ci réew mi delluwaay ba mooy baabu muridina ndax ku jëriñu ci sëriñ bi rek maam Cheikh Ibrahima Fall moo la won yoon waaye laata sëriñ bi bind tuuba li abdin muridin saadixin lahum bi xidmatin aw bi hubbin aw haddiyaati maam Cheikh Ibra eh, dañoo wan yoon wa moo tax waxtu woo jànge waqe di xawaay jëli si daamu fi xidmati xablahum maaraamu da ngay xam ne rek njabootu njabootu Cheikh Ibra Fall ñoom bayit woo wii kon sëñ Cheikh Khadim sëriñ baa ngi lay dolle ak cant ak ngërëm bis bi bi ñu fiy teew kenn ku nekk ci ñun la nga yëg mooy yëgal nga ko waaye sëriñ Basiiru cofeel bu mu amoon ci maam Cheikh moo taxoon ñu ñu doon ñëw ñëwee jaar na ci sëriñ bi fee mu nekk ca géejuwaay mu nañu nañu nañu dem sëriñ Cheikh Fatma daana ko fi teewal dana ñëw biñ demee ba bi ñu julli gee ci la door a woote woo sëñ làmp mi ne ko danaa yebal sëñ Moustapha lay mi nga xam ne mooy jëwri ja foofa ca géejuwaay ngeen ànd teewal ma fa kon tànk yooyu lañ fi teewee tànk sëriñ bi di sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha ku xam moo Cheikh Mouhamadoul taxa xam ne royukaayam mooy maam Cheikh Ibrahima Fall waxee na ko nu ne jëfee na ko nu ne nga xam ne kum gis ku bokk ci njabootu Cheikh Ibrahima day beesalaat pas-pasam beesalaat yitteem loolu nag ci day delluwaat ci sëriñ bi rek mooy ci diggante mook maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Bass Abdou Khadir wax na ko wax na ko ñu dégg boo diggee boo duggee néeg Cheikh Mamadou Mountakha photo maam Cheikh Ibrahima Fall ngay jàkkaar loolu ci néeg boppam fañ koy siyaaree it ku ne gis na ne photo maam Cheikh Ibrahima Fall ngay jàkkaar loolu kon royuwaayam mooy maam Cheikh Ibrahima pas-pas bu rëy boobu nag moo tax lépp lu ñuy sumb di ko sumbal suñ jàmbaar ju tedd jooju yi nga xam ne kenn amul fayam muy maam Cheikh bu sañoon njabootu sëriñ bi yëpp danañ fa teew ni ma ko waxee ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha nag noonu la tàmbalee ci Cheikh Moudou Moustapha mu mag ak Cheikh Mouhamadoul Fadal ba Cheikh Mouhamadou Lamine ba Cheikh Mouhamadoul Mourtada ñoom ñëpp njukkal lu toll noonu lu noonu lool loolu la ñu ameel maam Cheikh kon nag ci kàddug sëriñ bi si Cheikh Khadim sëriñ bi nee na mu ngi lay sant bu baax di la ndokkeel ci bis bi. di ci jaajëfal dina ñaanal ci barkeb maam maam Cheikh Ibrahima Fall nga yàgg koo liggéeyal ngeen yàggoo ànd ak moom ndax yoon nii rekk la dëgg ndigal ak tego ci te tego ca tege ca kon yéen dongo yi nga xam ne yéen a fi teew di royukaayu maam Cheikh nga xam ne seen yitte jëpp mooy làq ngërëmam na ngeen xam ne bis bii de lu yitteel sëriñ bi lu ko ñor la ndax bu sañoon de jàngale maam Cheikh rek ci lañuy sax te dara jiituwu ca jataay yu mel nii nga xam ne sang si ñoo koy woote di ay ay ay njabootam di deretam waaye ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxee ay saa su nekk kalimatullahi al-ulya yëkkati baatu yàlla bi loolu nag Cheikh bi da cee am maam Cheikh da cee am wàccuwaay wu kawee kawe ak yéeguwaay wu kawe kawe di ci jañ di ci di ci ñoddi di ci jañ alhamdulilahi rabbil alamina wala shukrullahi akbar la gën a màgg ci sunu borom mooy tudd tur yàlla kon ndigal rek lañ jot moo tax ñuy sànni kàddu waaye baatu laa ilaha illallah doy na sëkk ci fàttaliku maam Cheikh ak ñaanal réew mi yépp aw yiw ak teraanga kon alhamdulilahi rabbil alamina ñaanal ñaanal ñu ngi leen di ñaanal bu baax góor yàlla yi fi teew yépp lu ci waay def sëriñ bi nga ko defal ndax bu sañoon lu fi lu luñ fi def rek moo ko fiy def loolu moom loolu Cheikh Mouhamadou Mountakha loolu la wax dana bis bi rëy na kawe na ci moom moo tax bi mu toogee ak tey woote na fi bisu sikkar baatu laa ilaaha illallah ñaari yoon kon bu sañoon bis bi moo koy defal boppam kon ku fi teew di taalibe di mbokkum jullit ba ci suñ mbokki laayeen yi lépp lu fi waaye def rek Cheikh Mouhamadou mu nga ko defal suñu am na moo di benn nga ko defal kon nag yàlla na sax ñu dajee ci ngërëmal sëriñ bi dajee ci ngërëmal maam Cheikh alhamdulilahi rabbil alamina góor gën a góor góorgóorlu rek gën a nekk ci liggéeyal sëriñ bi ndax maam loolu rek la bëgg ci ñun moo moo wane yoon wi kon nañ ko daan waxee rek lépp yow a faal lépp yow a alhamdulilahi rabbil ba àjjana lépp moom lay doon wasalaamullahi aleykum wa barakaatuhu ci turu jëwriñu Cheikh Fall bi di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda waaye di jiital suñu nuyoo mu jëm si njabootu sëriñ Tuubaa ji fi teew di leen jëkklu te di leen siyaare bu baax Mbakke di rafetlu kàddu yi nga xam ne suñ maam làmp jotal na ko muy kàddu yi jëwriñu sëñ Tuubaa ji di Cheikh Ahmadou Mountakha ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ak dundam te wéral ay cëram yéene ji mu am ci liggéeyu maamam bi ak waajuram yi nga xam ne ñoom la wóotu suñu borom kàttanal ko ba lu mu ci yéene mu def ci lu kawe njortam te ànd koog ñun taalibe yëpp. di leen jottali nuyoo sëriñ bi ak siyaaram bi jëriñ yi nga xam ne ñoom la ma booleel ma ànd ak ñoom muy sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Mbacké Fall ak sëriñ Daam moom sëriñ Amdi sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Tall ak sëriñ Makhtar Fall ñu ñëw fekk fi ak rakkam ji di ab taalibeem di xaritam di léppam muy sëriñ Abdou Fall Rokhaya mu sëriñ Mor Talla Fall yàlla sunu borom teel nu aw dundam ak wéram te yàlla fayal nu ko yebal nu ci bis bii nga xam ne doomam ju baax ji di ab taalibeem moo koy taxawu ren mu mel ni àgg nañ ci ñaar fukk ak ñaar ci ay yoon yoo xam ne taxaw nañ ko fii ci Ndakaaru muy liggéey boo xam ne naka jekk ba mu ko sosee ci baatum ndigal amul amul woon genn jubluwaay lu liggéeyal si maamam Cheikh Ibra Fall fii nga xam ne mooy bërëb bi ànd koog taalib yi nga xam ne ñoom seen yitte ak seenu bëgg lépp ci liggéeyal Cheikh Ibra rekk la jëm mu di ko taxaw at mu jot muy gën di yokk at mu jot muy gën di màgg ñu dem ba doon kiimaan ndax ñii daje fii si kuréel yuy jàng xasida ak ñi fiy daje si ñuy tudd yàlla ñu ko sëriñ maam làmp waxe léegi wala sukurlaa akbaru baatub laa ilaha illallah lu nit di génn si aw làmmiñam loolu moo sa gën a mag moo gën a tedd bu nu gisee kuréel gii nga taxawoon fii léegi wàcce seen kàddu kenn ku si nekk di tudd baatub laa ilaha illallah léegi la wax sëriñ ma dikk mi ma dëndal ne ko réew yi am guerre sax guerre yu te dakk bu fa lii jiboon bu fa ñiitee woon réew yooyu am jàmm rawatina fii nga xam ne mooy dëkkub Serigne Touba dëkkub maam Cheikh Fall dëkkub gaa yu baax yi nga xam ne def nañ fi loo xam ne euh, kenn mënu koo ñàkk te kenn mënu koo may sa bopp kon ndimbal rek moo si boole waaye du ngóor du njàmbaar kon feex googu suñ borom da koo jagleel. jëmm ju baax ju tedd ji di sëriñ Cheikh Khadim Fall yàlla nag mooy seet ku ko soob mu def si yow lu ko soob waaye jëmm ji mu ko jaarale si moom jëmm ju gore la damay wax léegi sëriñ bi ne ko gor su gore mooy sëriñ Cheikh Khadim Fall ndax doon as gor moom amul benn njariñ li am njariñ mooy gore te sëriñ Cheikh ku gore la diggam ak sëriñ bi ku gore la diggam ak ay bokkam ku gore la diggam ak bokki taalibe yi ku gore la digganteem ak jullit ñi ak mbindeef yépp amul ka kenn xaar ma yàlla xol bu rafet la yor genn bëgg la amit mooy doon ab taalibe rek soxlawul dara te ku jaxasoog moom da nga xam loolu si moom loolu it moo ko may lii mu am bu wootee ñëpp wuy si ko kon loolu tawféex la sëriñ bi wax na ko fi teewal ndax moom mii de ba mu xalaat ba mu jàppee bii dafa ñëw ba si sëriñ Amdi Fall mu sëriñ du Mbenda si ndigalu sëriñ Abdou Fall mii nga xam ne mu jëwriñam ñëw tàggu si ko ba mu ñëwee yëgalu ko da koo tàggu si xamal ne ko bis bii ma daa waaj daa def dafa jege si ma ñëwoon doon laaj si ndigal bu ma si am ndigal wéer ko su ma si amoon ndigal topp la ma digal sëriñ bi xamal ko ne ko boo demee am na ndigalul wéyal ko te danañ yow seet ak baatin kon loolee moom la sëriñ bi jëmmal moo tax sunu teewaay fii moo tax teewaayu gaa yu baax yi fii te ndigal loolee pam war a jaar yëpp dafaa jaar ndax sëriñ Abdou Fall mii toog ku ko xam xam ne ku doon wut ku am ngërëmul yàlla boo yemee si moom nga taxaw ku doon wut royukaay yi si maam Cheikh Ibrahima gisuma ku si romb Serigne Abdou Fall roqee mu Serigne Mor Talla Fall lu nit gàtt gàtt martaba soo ko joxee loxo bala nga jot moom mooy jël sab loxo teg ko si jéem doo ko fekk ci menn mbooloo ba ràññ ni kii wala nga xam ni kii ab cër dayo bi mu am ci Cheikh Fall dañuy wax ne am na cër bi yoo xam ne ka ko moom waxtu woo gisee mu di ko xëccu di ko wone xamal ni du ab cëram waaye moom lii mu am kenn ku ne xam na ni ab cëram la kenn ku ne xam ne mooy sëriñ Mortala Fall moo doon Cheikh Mortala Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall waaye jataay bii nu toog moo fi gën a wayaf moo fi gën a wayafal boppam moo fi gën a suufeel boppam fii mu toog si toogu gii wér na ma ni de bu mënoon a ñàkk wallaay li asim du fi toog barkeb Cheikh Ibra Fall ndax woyof gu mu woyof te loolu ñi mu bokkal ñëpp xam nañ waaye ku di ab taalibe bi xam nga bu jaxaw sa woon ci biir mbooloo mii dina am ñoo xam ne du ñu ko ràññee ak daam faal mu nekk ci biir mbooloo loolu yi nag ak tawféex la bu ko suñ borom defal moo tax mu mën a taxaw ci kanamu njaboot ñaan ci doole Cheikh Fall yàlla na ko suñu borom téyel fanam wi ak wéram bi sëriñ bi wax ne mi ngi sant sëriñ Cheikh Khadim mi ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal te xam ne di seereel mbooloo mépp ni sëñ Cheikh ku ko fonk la sëñ Cheikh ku ko weg la sëñ Cheikh ku ko waggar la sëñ Cheikh jàppale la sëñ Cheikh ku déglu la te loola lu yàgg la tàmbaliwul démb tàmbaliwul bëkki démb loola ñi mu jaxasool xam nañ si dara mat nañ si seere sëñ Cheikh gore la sëñ Cheikh ku baax la sëñ Cheikh ku yiw la te loolu man maa ko wax fii si jotaay bi sëriñ Amdi Fall seere ko kon nii ñaan liggéey bii nga xam ne moom nga taaw nga xam ne amoo gën bëgg loolu liggéeyal sa maam Cheikh Fall te lépp loo si am xam nañ ni sa yéene mooy bokkook taalib bi yëpp yàlla suñu borom jàppandal la lépp yàlla boo dajeeg benn pakk wala benn galkal wala benn gàllakoor foo bëgg ak àgg yàlla na nga ko weesu barkeb Cheikh Mourtala barkeb sëñ Mout Fall mbenn barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall di la sant di la gërëm si turu mbooloo mépp bay Fall yëpp ameen lañ la njukkal dañuy roy si yow ab yar dañuy yor si yow ab ay teggin te loolu mooy fondement ak taalibe dañuy roy si yow ak dal dañuy roy si yow ak yiw ak nite nite lu am solo la nite lu am solo la boo ko génnee si nit rek dara dootu si des te sëriñ Cheikh ku nite la sëriñ Cheikh ku xam àddina la ku mën a jaxasoo ñëpp la kenn xamul si këm kenn ku mën a feeñal si amul te loolu ñun ñëpp kenn ku ne mën ngaa yëkkati sa loxo seere ko si jëmmam ji jagleen ko suñu boroom jagleel la nag nu yéene ko ko lool ànd seek moom lool moom njaboot ji àndal yëpp te it wér na ma ni keneen ku jëloon kàddu si njaboot gi mu bokkal Cheikh Rafal bu jëloon kàddu di wax ma la day wax lu weesu lii ma wax waaye du wax lu ko yées si jëmm seen Cheikh Khadim kon yàlla na ko suñu boroom fayal yàlla na ko suñu borom euh, ràng mbooleem jumtuwaay yoo xam ne ku bëgg liggéey liggéeyal Cheikh fa mu bëgg a li mu yittewoo lépp yàlla na ko suñu boroom defal tawféex gii am fii nag tey yàlla na doon naataange si réew mi yàlla doon fajub aajo si képp ku fi yewoo yàlla doon njalbeenu soppiku jëm si tawféex goo xam ni kenn ku ne danga koy am di ñaan si barkeb Sëriñ di Fall jotaay bii ku fi indi yitte ju a doon muy jàngoro yooyu la yitte àddina yal na ko suñu borom saafara booy génn bunt bii rek lépp di saafaraw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kàddu yi nag maa ngi koy wax si turu Serigne Fallou Fall mii di sama kilifa Serigne bi boole maa moom ak Serigne Dame mii ak ñu àndal di sant sëriñ bi bu baax léegi bi ko Serigne Fallou nuyoo jox ko addiyaam damaa war laaj ma ne ma addi jii de attanu ko neel sëriñ bi dama koy delloo te loolu yi defu ko muy ngistal de ndax loolu lay dund moom mooy jël di def ci sëriñ bi waaye soxlawul sëriñ bi di jël di dox ci moom loolu nag mooy melaw aw taalibe sëriñ maam làmp dafa fàttali léegi soññee léegi ci ak taalibe ndax nun ñi ñëpp li nu tënk ci sëriñ bi noo sukk fi kanamam wax ko jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi kon li nu tënk benn baat la muy baatum ndigal kon waxtu woo xamante ni juyoo nañoo moom nañ daal di def suñu yitte si delluwaat sa ndigal la di bañ di jëfe sunum xel tey jëfe ndigal ndax sëriñ Saliou yàlla na ko suñu mu fayal waxoon na ni am xel moom day dem si garab yi dem si géej gi dem fu ne waaye ab tànk tege siw yoon mooy tax mu àgg fa mu jëm wan nañ nu aw yoon nag bàyyil na fi ndono lu wir loo xam ne nii amul sikki sàkk bëgg sëriñ bi bañ bañ koo yemaleeg dara nangu koo liggéey rekk te tax loolu dong la nu fi Cheikh Rafal bàyyil si ndono ñii toog di njabootu sëñ Touba Cheikh day laqoon na lépp ba muy ñëw si sëñ Touba indi na alluwa ji mat sëkk indi na ab juddu indi na teraanga indi na daraja waaye ba mu ñëwee jëbbal boppam sëñ Touba mu nangul ko lépp da koo réer ndax da koo jël teg ko si loxol sëñ Touba nangootu la xam nangootu la am lépp mu jox ko sëñ Touba ne ko féeteel ak yàlla yow mi ko xam man ma féeteel yow man mi la xam taxaw dem ngir. lépp lu mënoon a gàllankoor sëñ tubaa si li mu diggee ak rasulullahi salaa salaam seera faal taxaw sa loolee ba sëñ tubaa du am yitte lu dul rasulullahi ak yàlla sunu borom loolee nag kenn ku ne xam na ni fam sa fée féete woon matal na waaram matal na ko ni sëñ tubaa matale waaram sëñ tubaa mooy xadimu rasool baat boobu suñ ko tuddee moom rek a ko jagoo kenn du ko werante kenn du ko xëccoo ak moom waaye Cheikh Ibra Fall mooy baabul muridin loolu ñëpp nangul nañ ko ku da ngay def la Cheikh Rafal defoon loo bëgg bëgg sëñ Touba te defoo la Cheikh Rafal defoon kenn tuddeegu la ab murit Cheikh Rafal fekk na fi julli fekk fi woor fekk fi natt asaka ak i dem Makka waaye ba mu ñëwee lam tànnoon ànde ko sëñ Touba tey jii ku bëgg a doon am murit yoon woowee dong ngay jaar kon na nanu gën a góor lu baax te xam ni sëriñ bi li nu mënta ñàkk te mënaluñ ko suñ bopp moom la ñu sàkko ji si moom kon nag faw ñu nangu ñu teg ko ak buum topp si gannaawam lépp lu nu digal nu jaar sax te di moytu lépp lu nuy tere di bañ di topp sunum xel tey déglu baatum ndigal sëriñ bi moom la ko war nekk na sax mooy digle waa kon nun taalibe yi nun murit yi li nu war mooy déglu baatub sëriñ bi te sëriñ bi kat ñoo ko mën a waggar ñoo ko mën a teg sa kaw ñoo ko mën a fonk ñoo ko mën a téyel kàddoom kon loolu yi bu nu ko sàggane bu nu ko foyee kon ñu ngi sant ñëpp di yemale foofu sunu kàddu di jéggalu ñëpp ñi nga xam ne suñuy kilifa lañ toog ci jataay bi di dollee siyaare su njabootu sëñ Tuubaa gi teew léegi lañ may xamal ni ma ñett ñoom ñett ñi toog ñëpp maam Cheikh Ibrahima Fall lañ leen duppee muy njabootu sëñ Tuubaa di njabootu Cheikh Modou Bassir loolu tawféex la ak jagle la diggante sëñ Bassirou ak Cheikh Ibrahima Fall luñ ci xam rek sëñ Bassirou na ko xamal ku xam dara ci Cheikh Ibrahima Fall diggam ak sëñ Tuubaa ci sëñ Bassirou nga ko xamee. moo ko nettali loolu tawféex la ak jagle la muy ak déggoo gu nu amoon ñoom ñaar ba mu daa ñëw si moom di ko laaj ak di waxtaan ak moom mu koy leeral loo xam ne fekkewuñ ko wala xamuñu ko kon loolu tawféex la sëriñ bi ñu ngi ñaan seen tànk yi ngeen ñëw fii si kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ñaan seen turandoo bu baax woowu ñu ngi ñaan si kattanam ak ak màggam daraja ju mu dencal ku baax yàlla na leen ko xëpp barke maam yàlla na ngeen yàgg yàlla na ngeen wér yàlla bu leen dara dog barkeb sëñ Tuubaa Cheikh Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah